fukki fan ak ñeent si weeru août 2014 fukki fan ak ñeent si weeru août atum 2024 tey gilee la am fukki at ginnaaw bu Bassirou Faye génnee àddina ñi di étudiant wu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngay fàttaliku seen mbokk bi lii tey nag ñu daal di ko defal ay ñaan. dañoo daje tey ngir màggal anniversaire u ki nga xamante ni ñàkk na bakkanam itam ñu daal di koy ñaanal ngir lim fa fekk gën lool lim fi bàyyi ñu ci porox ndoolu rek di woo état wu Sénégal ba yëf yi ni mel bañ a amaat diplomate ci l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndaxte ndaw wu ñëw ngir sàkku xam-xam gannaaw ba nga amee naa war a dem delloo ko sa dëkk. mu ñëwoon teewee bi les de prière magu Bassirou Faye bi daal di rek ñëwaat si détailu dossier bi ginnaaw bu ñu fàtte rakkam. gagné nañ procès bi on a démasqué le coupable le gars purgé normalement une peine de vingt ans ñu def appel ñu réduire ko à dix ans ñu dem ba ci biir Macky grâce jox ko grâce c'est désolant quand même grâce mais dafa am ñoo xam ne il ne mérite pas d'être d'avoir la grâce. yile étudiant daal di profité si bile occasion ngir rek wax jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund. si biir université bi. sur le plan social le service si wàllum plan social bi nag daanaka lu ñu dese bari na ndaxte jumtukaay yi ñuy fajoo dees nañ koy gën a defar lekkin wi itam am na saa da ngay taaxi lu mot ñaari waxtu ngir nga daal di mën a am li nga lekk jumtukaay yu fi ñuy jàngee itam dees nañ koy gën a ñoŋal. les infrastructures manquent ce qui est déplorable. collectif des étudiants de l'UCAD daal na artu état bu Sénégal si lu jëm si installation police. si biir université bi ñu daal xam ne ni que fas yéene wu ñu bàyyi loolee jàll. le le campus social est un est, est là pour les étudiants et non pour les forces de l'ordre. nous ne l'accepterons pas.